waaw yemale nombre de personnes yi loolu mun nañ mun nañ ko jël mun nañ ne plateau bi mënul warul passé juróomi nit wala juróom ñetti nit mais dès l'instant où ci biir plateau bi en même temps respecté nañu les mesures de distanciation qu'on appelle sociale mënuñu obligé en tout cas présentateur journaliste mu sol masque parce que si benn télévision du monde gisuñu ko nañuy gis évidemment invité yuy ñëw ak ay masque mais présentateur le plus souvent war nañ ko mun identifier kon quand même xàmmee kan mooy wax parce que soo gisee euh, nit ki ñu lay déglu c'est parce que dañ la mun identifier ku nga xam ne xamuñu sa kanam lu ñuy nural généralement duñ ñu mun déglu bu baax moo tax journalistes yi dañuy invité di sol ay masque pour ñu mun capter attention li nga xam ne moom mooy seen téléspectateurs yi tout état de cause loolu euh, su kenn euh, dañu ne si studio yi wala ci plateau télé bi waruñu fa accueillir lu ëpp juróomi wala juróom-benn nit loolu en ce moment ñu nañu imposer ñuy ñëw ñu sol ay masque mais su dul loolu vraiment gisuñu ko fenn.